waaye yéen ñëpp maa ngi leen di siyaare di leen wàccee seen wàccuwaay di nuyu nitu daara yi nga xam ne ñoo féetewoo jàng ak jàngale téere suñ borom boobu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoñoon leen ne leen kenn gënu leen xayrukum man taallama alquraana wa allamahu ñoo ngi leen di siyaar bu baax baax di leen ndokkeel di siyaare bu baax it jullit yi nga xam ne waxtu wi seen waxtu wéttal la am na koo xam ne nee na ma dangay wax ak man ndax jamono ji nga naan mbokk yi toog yor seen kurus di wétlante ak ñun jotaay bi nee na moom waxtu wii ci loola la koy fekk ñoo ngi ko ciy nuyu bu baax a baax suñ mbokk yi dëkkee siin ak saalum yépp kawlax ak li ko wër suñ mbokk yi dëkkee tuubaa ak li ko wër mboolem ñi nga xam ne nekk nañ ci biir réew mi ku lim juum léeg nga yuqamtiku di gërëm ku sori ndax yitte jum def ci jotaay bi boole ci yëkkati téléphone am ba woo ndeke am na kenn ku la jege koo xamante ne sax yàlla xam na ne waxtaan wi def na ko mu nekk aw wéttalam ñoo ngi leen ci nuyu baax a baax ci wéttalante boobu ndax dafa mel ne loolu daa bokk ci li tax suñu borom indi ñu fi wala sax man nga ne loolu doo nga tax suñu borom indi ñu fi ndax la aaya ba waxoon ne wa maa xalaqtul insa wal jinna wala jinna wal insa illa li yabudun yàlla nee na daal lenn rek ka tax ma bind nit su fekkoon dañ koy laaj lu tax nga bind nit nee na mu déggal ma doo nga tax dama bind nit ngir nit déggal ma yàlla nag bi mu bindee nit ngir nit déggal ko wàccee ko ci kawnu bi fi mu ko wàccee mooy kaw suuf kenn defu ko ay dog kenn yettu ko kenn néewul réew mi mooyam fii réew mi mooyam fii doomu aadama yi wàcc ngir bëgg a dundal ndigalul suñu borom loolu ngir bëgg a dundal suuf waaye ngir bëgg matal li tax suñ borom wàccee leen fi ñu séddoo kaw suuf tàmbule ci kenn nit ka njëkkoon a wàcc ak jabaram di aadama ak xawaa ña cay sosu di ca sosu ba àdduna mujj toll nim toll waaye nag lu ñu bari bari bari bari ci ñaar lañu tàmbulee ba àgg fi ñu àgg waaye doorewuñ ci kenn doorewuñ ci bari laa bëgg a wax kon wute gaa am waaye maam ja menn maam képp la alaakulli àllin taxawaay bu am solo boobu bu ko doomu aadama di fàttaliku daf koy delloo ci bis bu set ci muy xool moom mooy kan li may faral di wax ne léeg nit ki nag war nay taxaw taxaw taxaw dafa baax dañuy faral di wax ne doomu aadama bi nay isaab boppam di régler boppam bala koo suñ boroom a regle loolu mooy taxaw googu mooy junju commerçant yi dañ koy def buñ liggéeyee lu matum at taxaw xayma lañ yor ci bagage xayma lañ jaay ak lañ ca def xool danañ ca xoolaale ba mën a génne asaka waaye danañ ca xoolaale it ba xam ndax ñoom dox na maanaam perte nañ wala euh, amee nañ ci dara doomu aadama bi nga xamante ne dund na nag ba am ñeen fukki at ci dundam allahu akbar ñeen fukki at léegi dafa jaadu léegi mu calcul nag ñeen fukki atam yi sama fukki at ya xam naa ci njàng laa nekkoon léeg moo xam ne ci njàngum alxuraan la nekkoon wala ci njàngum métier wala ci njàngum français wala daal ci njàng la nekkoon rek wala ci njàng la nekkoon teg naa ci ay at yoo xamante ne ci tàmbulee jëfe la ma jàng ca laa nekkoon dem ba mu yàgg nag kaw suuf am naa lu ma fi jot a def samp naa fi kër am naa fi soxna am naa fi njaboot am na at yoo xam ne dama koo tawatoon am na bis yoo xam ne dama ko doon nelaw am na bis yoo xam ne dama ci daan dem di doxi lu baax xayma xayma xayma xayma dundam gi xool nag bu noppee man li ma jotu dund su ma doon def di ko séddale di ko di ko def ay xaaj perte lay gën a jege wala euh, xel mu dal lay gën a jege alaakulaalin war naa mën a auditer boppam léegi léegi léegi auditer boppam waaw lan laa fi jiite yan association ci laa nekkoon ci lan laa jeexal sama ndaw gi laataa may am ñeent fukki at damaa tudd baat boobu léeg mu doon ku ko ëppale te di ma déglu léeg mu doon koo xam ne matlewu ko ala kulli alin xaymawaat dund googu lu am solo la suñu jotaayu almisbaax yi buñ koy ubbi léeg ma laytaaye ko benn laytaay goo xam ne day joxoñ nit ki ci boppam suñ ko waxee mu yóbbaale fu mu mën a bokk ginnaaw bi mu nekkee ab jullit rek waxtaan wi waru koo romb benn yoon lu dul ne yoon woowa am na lum ca mën a jànge dañuy gis ñu baree bari ci kaw suuf góorgóorlu nañ ba réussir maanaam seen àdduna jag jaral na leen lu nekk ku xool kawnu bi ni ni mu ni mu tëdde nga gis loolu danga gis ne waa bi mu ko jaralee liggéey tàmbule na ci ay mbuus di jaay wala tàmbulee na ca bay wala tàmbulee ca yett léeg mu dem sax ba réew mi mu nekk doxut mu lijjanti ko fi buub ay bagaasam dem ci meneen réew waaye loolu yépp ndax bëgg àddunaam jag loolu yépp ndax bëgg rekk doon koo xam ne du nekk al toppe doon koo xam ne du doyadi doon koo xamante ne du taxaw ci yuñ koy xeebe léeg su ma koy seetlu ba mu yàgg day yéeme ndax tey fi ne boo demee bitim réew ki nga xam ne day door a yegg si boo ko laajee loo gën a bëgg ay këyit la lay wax man daal ami këyit laa bëgg ñaanal ma ma ami këyit ñaanal ma ma ami nga xam ne boo koy seetantal day mujj danga naan àdduna bépp ci këyit la yem waaw àdduna bi yëpp yëpp yëpp ci am këyit ci la yem te ndekete am ay këyit dong doyut <laughs> waaw bi mu góor góorloo ba ami këyit ci lay góor góorgóorlu nag pour door a wut nag lan moo koy indi waaye jamono joojo moom day jàpp ne ami këyit daal mooy tax ma mën a circuler mooy tax mooy tax mooy tax waaye mbokk yi tukkikat boobu nga xamante ne day dem di tukki te la muy defi nekk ak jaamu yàlla am réewam am luñ ko war a jàppalee moom it mu am lum war a jàppalee am réewam njabootam gi fi bàyyi am luñ ko war a jàppalee moom mu am lu leen war a jàppalee am njàngat mu baree baree baree bari mën naa feeñ ci tomb yooyu nga xamante ne day soxal ñi nga xam ni ñoo dëkk ci réew mi tey dund bitim réew waaw léeg ñu dunde ko nattu nattu ndax tukki rek ci xeeti nattu yi la bokk waaye xéewal la bokk wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fil ardi muraaxaman kathira wa saa suñ boroom nee na koo xam ne dafa dafa laxasaayu dafa laxasaayu tukki tukki te jaamu yàlla tax kon liggéey da cay dugg lépp da cay dugg lépp nee na suñ borom nee na dana daje xéewal yi mu bëgg a dajeeg yépp kon li ci nekk te ma koy joxoñ mooy léeg gis nag nañ ma baal koo xam ne bi mu àggee lay fàtte réew mi mu jóge woon ñi nekk bitim réew man nañ cee gis koo xam ne day àgg fàtte réew mi mu jóge woon te ndekete xamul ne réew mii dafee tukki si rek ku dox ba sonn la toog ci garab di noppalu daa war a jógaat su fàttee réew mi mu jóge woon ba bi muy liggéey du xalaat yónnee fi ñu defal ko fi dara xalaatut bi mu waree takk soxna mu takk soxna samp fi kër xalaatu sos fi dara loo xam ne dana ko jural dara ëllëg mbokk yi kooku dana dem ba mu yàgg mu bëgg a ñibbisiwaat cim réewam ñibbisi jafe ndax ñaari yëf mooy dana am kersa lool ci at yam fa def te bàyyiwut xel ginnaawam bu ñibbisee ban bët lañ koy xoole kersa da ko ciy dugg lool waaye itam dana am problème lool ci suma àggee man lan lay dunde am naa fi ay at yu bari réew ma awma fa kër ndax damay dellu dem ci kër bàyyi ga ñëpp bokkoon wala damay dellu dem ci kër rakk ya ak réalité réew mii ak wax ju sew nim nangoo bari ci pénc mi kon nan laay ñibbi seeti moo tax boo ciy xalaat ba mu yàgg danga naan ndaw li toll ci liggéey moo xam dafa dem ba bitim réew moo xam dafa ne ci biirum réewam na sóoraale ëllëgam li feeg mi ngi dund ndax am na loo xamante ne bu ko foyee am na loo xam ne bu ko foyee wala am na loo xam ne ku ko foyee wala ku ko sàggane danga nga ko rëccu am na loo xam ne ku ko sàggane da nga ko rëccu te ku foyee sag ndaw ku ne rëccu sag mag waaw koo gis mu foyee ak ndawam mu wax la ko wala mu bañ la ko wax ak magam dana doon koo xamante ne ku rëccu lay doon foyee ak ndaw baaxut boo demee foofu danga gis ñoo xam ne danañ dem ba àgg gannaaw ba ñu amee ay kayit léegi ñu ne dañuy wut nationalité nee nañ ma sax am na réew yoo xam ne ngir nga am nationalité da ngay bàyyi sa bopp senegal nga xam ne da ngay bind ne man bëggatumaa doon sénégalais nekkatuma ko waaw ndax seen nationalité duñ ko booleeg beneen réew mu mel ne Allemagne wala wala walla yow mi toll ci ak ndawe tukki cim réew am fa soxna am fa doom ndax ni waa réew ma di dunde doy na la bëgg nga sa doom am jikko yooyu wala déet bu fekkee bëggoo sa doom am jikko yu mel noonu dogul ci taxaw ni nga leen di yare te ab yar nit ki da koy def kër gi da koy def mbedd mi da koy def te boo seetloo ne yow mii nit ki temps bi ngay def ak moom bi muy def ak mbedd mee ko ëpp bi muy def ak euh, société bi nekk foofa ñoo ko ëpp te luwaaye nekk foofu tënk na la ngir nga man koo yar ni mu waree te bëgg nga mu doon ki nga doon rikk waay bàyyil xel nag fi la yare ak dellu si googu nga bàyyi ci xel bu baax bañ a dàq àdduna ba tax nga sànk ko ndax doom deret la ju bàyyikoo ci nit mu nekk ci moom responsable ëllëg bi nga takkee soxna am cay doom warta doon luy dimbali système boo xam ne dëppawut ak boobu diine waaye daa war a doon luy dimbali diine lislaam ji ba noppi doon loo xam ne day dimbali aw askanam su ko defee nag tukki am soxna wàññiwu dara tukki ami doom wàññiwul dara waaye nag kenn ku nekk nag sóoraale responsabilité bi yar sóoraale responsabilité wala boog bis ba nga xamante nit ki dana buubi bakaasam di ñibbisiwaat ci réew ma nga xam ne moom la bàyyi ko loolu mooy tukki bu ndaw bi boo ko yaatalee ba mu yóbbu ñu ci tukki bu mag bi nag mooy bañ jógee ca fa neex suñu borom ñëw fii ci àdduna suñuy ruu ak yi ci aju ci tukki lañ nekk bis dana ñëw ñu delluwaat nag ci ñibbi gu mag ga dëkkiwaat ak suñ borom subhaanahu wa taala foofa itam nag kenn ku ne la nga doon jëf moom nga fay fekk wajadu maa amiloo xaadira waaw buñ demee fekk lañ doon jëf mu jóge waaw nu mu toll rek mooy la nga fa yónnee woon foofa amut kenn kenn kenn kenn kuy dox sa diggante wala mu yàq jëf ji nga doon jëf lu dul ne yaa ko yàqoon fii ci àdduna waaye boo góorgóorloo ba mu jag ci àdduna boo demee foofa mu jag ba gën a jag ñépp loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko indi ci doore ko jotaay bi doore ñëw ci ndénkaan li nga xam ne moom laa koy tëje bis bu set suñu ndénkaaneb tey di tollook ndénkaaneb e, ndénkaaneb fukkeel ak juróom-ñaar gannaaw bi ma noppee ci ndénkaaneb fukkeel ba ak juróom-benn saxaaba bu ñuy wax jaabir ibnu abdullah radiallahu anhu nett li woon ko wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na na ngeen moytandiku tooñ ndax tooñ ay lëndëm lëndëm lay doon ëllëg yowmal xiyaam na ngeen moytu bëgge wala nay ndax bokk na ca la alak xeet ya leen jiitu woon bëgge gu ëpp yóbbu woon na leen ci ñuy tuur deret yóbbu woon na leen ci ñuy daganal yi nga xam ne yàlla daf koo xaraamal suñu ndénkaanib tey di ndénkaanib fukkeel bi ak juróom-ñaar mi ngi jëm ci wàllu tere gu lislaam di tere ñaanal nit lu bon bu kenn ñaanal doomam lu baaxut bu kenn ñaanal boppam lu baaxut bu kenn ñaanal bu kenn ñaan ci alalam lu baaxut waaw ñaanal sa doom yàlla nga toskare léeg-léeg nga dégg mag ñi di ko wax baat boobu laay jëfandikoo ndax moo gën a teggine waaye ki ñàkk baat boobu ba di jëfandikoo di ñaanal doomam day jëfandikoo baat bu mel noonu yow kay sa dund gi moom dee sax a ko gën waaw ñaan yooyu wala ngay ñaanal sa bopp man kay lii dee wuute ko sax moom mooma ko gënal déet ëpp naa def de bul saalit yonent bi alayhi salaatu wasalaam day tere loolu moo tax mu ne bu leen ñaan yàlla seen bopp bu leen ñaan yàlla seeni doom bu leen ñaan yàlla ci seen alal te mu ne ndax bu ngeen di ñaan amul wenn waxtu woo xamante ne nit ki dana ko ñaan te du malaayika yi ñu ngi koy wax amiin ca la muy ñaan wala sax mu dëppook suñ boroom nangu ñaan ga bu ko defee mu am musiba moo xam ne dal na ko te fekk sababu ñaanam googu la loolu mooy benn xaaj bi nga xam ne mënees na ko cee déggee mënees na cee déggee it ne kii ñaan boroomam loolu daa mel ni xamul ne boroomam am na lu gën loolu kii ñaan boroomam loolu daa mel ne am na boroomam am na lu gën loolu am na beneen jàngale mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon kenn ci saxaaba yi wala kenn ci ñi te woon ak moom dafa am tawat ji ko dal tawat ji metti lool waaye faj ko jafe na lool maanaam yu metti rek a koy dal suñ borom wala boog yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko ne ko looy ñaan mu ne ko léeg damay ñaan sama boroom naan ko su fekkente ne danga maa nar a teg yu metti àllaaxira maa ngi lay ñaan nga teg ma ko àdduna waaye bul bàyyi ba àllaaxira nga di ma teg yu metti yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wa fil axirati xasana waxina azaban naar nga wax yàlla ne ko maa ngi lay ñaan nga defal ma lu baax ci àdduna maa ngi lay ñaanit nga defal ma lu baax ci alaxira nga xam ne àdduna ak alaxira yépp àdduna ak alaxira yépp bu boobaa dangay ñaan sa boroom mu defal la ko ay xéewal ndax mën na ko yàlla mën na ko ci lañuy ñuy bañee nga naan diw de su naree gàttu fan na yàlla jël samaw fan jox ko ko déedéet ndax yàlla mën na koo def moom mu gudd fan yow nga gudd fan ëpp naa def ñaanal sa doom itam yàlla na nga dee jëru ko bu dee ay jikkoom dalaa neexut ñaanal yàlla mi ngay ñaan te bëgg mu rey ko am na jikko yu baax yu nga ko mën a may kon ne ko yàlla yàlla na nga ko may jikko yu baax li la dal ba metti ak lu metti metti ba ngay ñaan sa borom subhaanahu wa ne faatu moom a ko gënal boo ñaanee sa borom subhaanahu wa taala mu teggi la loolu mën na la koo teggil bu boobaa sa boroom subhaanahu wa taala mën na la koo teggil te loolu mooy li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoon ñe nañ koy ñaanalante ñaanalante googu muy bañ ci ñu ñaanal nit safaan ba noonu la lislaam di ngir ñu waxal nit safaan ba mbokk yi waxante safaan léeg mu bari ci pénc mi lool léeg mu bari ci pénc mi lool ba noppi nag doon loo xam ne lu mën a ñàkk la ndax fu nit waxee ab safaan daa mel ne nit ki mën na fa wax aw yiw te waxu yiw moo gën fuuf moo gën fuuf waxub safaan bokkuñu sax <laughs> bokkuñu sax kon nag nañu wax aw yiw moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon kuy wax waxal lu baax te boo waxee lu baax ba mu jeex nga noppi waaw wax lu baax waxal lu baax waaye boo waxee lu baax ba mu jeex nag noppil man kaana yu'min billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon bu demee ci alxuraan ngir mu tere ñu ñaaw njort ak waxal nit naka sudut noonu daf ñoo waxoon ne lu tax bu ngeen déggee ñu wax ci nit lu baaxut ngeen weddil ko ko ngeen nekk palaasam walaw laa id samictumuuhu xultum maa yakunu lana an natakallama bi haada subhaanaka haada buxtaanun azim ci nee lan moo tax bu ngeen déggee ñuy wax jenn wax ju ñaaw jëme ko ci as gor jëme ko ci ab jullit yéen ñépp ngeen bàkk seen boroom waaw tiit ne loolu de moom ay sos la maanaam nit ki dafa mel ne li Seydina Aliyu doon waxu ne layal sa moroomum jullit juróom-ñeent fukki lay layal ko juróom-ñeent fukki lay ngir saxal ko ci diini ji moo gën indil ko wenn lay ngir génnee ko ci diini ji ab jullit day day rafet njort waaye fi jamono toll lu ñu wax ne di wa ko def rek boo noppee dégg ku ko dëggal ne lam def kay lam def kay tuumaalante bi bari lool ñaaw njort di ko indi waxante lu ñaaw baaxut loolu benn la beneen bi ci topp li ci gën a doy waar mooy léeg-léeg ñu tuumaal koo xam ne waree ko woon a mën a tuumaal nag ca dëgg-dëgg booy xool ni àdduna bi tëddee ndax bu fekkee dañ ne waa ji ab sëriñ daara la wala ñu ne waa ji ab nitu diine la bu njëkkatee yenn kàddu yu ñaaw teg ko ci moom ba yàlla dogal ñu gëm ko xëy na yow lu ñaaw lim def kenn nit la ko def mooy mennum yow la tooñ tooñu boppam waaye boo xooloon lim jariñ ci société bi lim jariñ ci xeet wi ak aw nit ñi nga xam ne ñi ngi gindeeku ci moom ak nit ñi nga xamante ne gën nañoo bëgg seen diine ndax moom nga woon leen ne leen waa ji ngeen nawoon ay jikkoom ba di ko topp moom day ndekete du nitu dara bu boobaa ñaata nit ñoom la diine di décevoir ñaata nit ñooy jaaxleeti fan lañu jële royukaay fan lañu ñuy jëlee kuñ teg ci seen kanam di ko xool moo tax li dox ci suñu diggante rawatina ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci ñun ñu leen di xoole bëti kilifa rik waaye nañ koy waxtaane ñoomu neen nañ koy waxtaane ñoomu neen door koo yaatal bam ne fànn ndax yaatal gi ba mu ba mu law daa mel ni ay njariñam da du bari te lim mën a yàq dafa bari waxtaane ko yéenu neen daal rawatina nag léeg mu dugg ci biiru mbokk réew na sax néew na sax ci Sénégal biir mbokk gooy dem fekk ñoom ñëpp rek ñu ànd euh, bëggante <laughs> lu yéeme lay doon lu la ñoom ñëpp ñu ànd bëggante di santante wóolonte doylonte déedéet rawatina nag nga dem nag ci kër ñi ñuy tudde tey këru sëriñ nga xamante ne exemple nga war a doon day mujj boo toogee kub sëriñ doo ko ñemee wax sëriñ diw sama xarit la réew mi daanaka àgg na foofu ndax boo toogee nit boo ko nee sama xarit la seede ci moom lu baax benn mu tàmbali laa daw yow ndax da koo fiire dalay tàmbulee daw sori la lu man wala mu tàmbuli laa yàqal kooka ba tax dootoo ko nawlooti te yàqante boobu ak dawante boobu amul benn njariñ bu muy indi réew mi amul benn njariñ joo xam ne moom lay indil eh, diine ji amul yenn njariñ joo xam ne moom lay indi liggéeyu mag ñi nga xam ne ñoo ko sampoon moo tax rafet njortu baax lool waaw rafet njortu baax lool tey di wax lu la wóor baax lool waaye sawar ci feeñal lu baax it baax lool ndeysaan barki démb dama wax ci sama baax bi may door di tester sama micro bi maag Alassane ma ne ko gis naa ne daal doomu aadama bi góorgóorlu moom lu mu ko def rek doyut ndax ñeenti at wala juróom yi ngay góorgóorlu di nab nabi moo xam jub na moo xam jubut mën naa bañ a am benn commentaire ndax loolu amut solo lool waaye gis nga njuumte lay jaar ci saw làmmiñ ba génn yal nañ ci yàlla musal te musal ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy tim micro yi tey wax ak jullit ñi mën naa am mu yàq liggéey ba nga liggéeyoon ca juróom-ñaar fukki at yépp ndax loolu lu normal la toq deret benn toq deret day yàq paanu soow ba mu fees te wax wala ku wala woo wala boo kóllëre euh, mag ma ne woon na moo ko bitee la yam da moytu mu bañ a toj waaye léeg ay nit séq dara ci mbokk séq dara ci kóllëre moo ko bitee yam gis nga bu tojee ñaw mënatut tax nga amu biteel daax mënatu tax nga amu biteel laxas mënatu tax nga amu biteel biteel ba moom toj na rek loo ñab ñabal ñab ñabal mënatu ta mel na meloon am na kàddu yoo xam ne ci mpénc bu ko ay kilifa tegante ñoom ci seen biir nawloonte mënatut a am te réew mi foofu la jëm boo demee ci politique bi da ngay gis ne bi way juru xalifa sàll wu jigéen génnee wax jaral na mbokk yi ñu dem ba fuuta loqarte ji fa maami président Macky sàll moom itam mu génn wax bu ko defee nag ñu nekk ci ab tontonte bu ñàkk solo boo xamante ne nii ay mag yooyu yilif xale yi ñoo war a am niveau bu weesu loolu ñun réew mi ñu am niveau bu weesu loolu réew moo xam ne ci njabar la bëgg di dox ñu naan diw daa xëram diw diw daa nangam diw ñuy publicité xëram yi ci tele bi di ko publicité ci rajo bi boo jaaree ci angal yi gisi nen bu élection di jub ñuy rey ay puune nañ ma baal di di def ay sacrifice yii mooy am cim réew bu boobaa tàyyel dana am ba kenn du liggéey ndax dañuy jàpp ne dem ñaan lu jeeg def ay sacrifice mooy tax am li nga bëgg ba noppi itam wóoloonte dootu am mbirum xeet day daal di tàmbalee dugg laal nañ ka ma bokkal man damay jóg bu boobaa réew moom mën naa tàkk ci erreur te ñi koy taal nag ñi ngi toog di xoole ñi ko war a fay ñi ngi toog di dégloo kenn ku nekk di dàq intérêt yi boppam ju mën a am tey te war a wut nag intérêt joo xamante ne nii moo ëmb askan wi yépp te loolu nag as gor ci loolu la war a dox nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci liñ bokk te mënuñ koo séddoo tam jaaroon ci ay loxo ba agsi ci ñun te war a génn ci suñu loxo demaat ci yeneeni loxo ñu góor góorgóorlu ba buy demaat ci yeneeni loxo nag loxo yooyu gërëm ñu waaye bàyyil leen fi ay ŋàdda ki ŋaalit mën naa ñàkk te loolu jikko yu ñaaw dana tax nit ki bàyyee doomam ndono lu bon te loolu baaxut ci diine ji ak ci àdduna yépp nag ci diine ji ak ci àdduna yépp ci diine ji ñi donn mag ñi jot gi am nii ñi ci ëpp mag ñi ñu donn woon amuñ ko mag ñi amuñ woon genn jot amuñu jotu lambar lambari amuñ woon jotu dugg ci détail ci tool ya lañ nekkoon di bay ak defar xeet wi ak participer ci développement bi réew mi bañañ jamonoon teeloon ñu ne ci niti nguur ñëpp naw leen ñi yilif tey poste yeeg nomination yi bu njëkk système bu ne encadré woon nañ ko ba ku ca wëtt dugg doo ca dugg léeg-léeg nag ñu falu ciw sant léeg ñu falu ciw deret léeg ñu falu ci askan loolu bu yàggee révolte lay indi ciw askan mbokk yi waxkat wala kilifa gu mën di doon ay joxoño ngi noonu yoo xam ne ndaw lu tuuti lu ñàkk xam-xam moo ko seetlu joxoñ ko waaye kenn ku nekk war na cee bàyyi xel ndax fa muy jëme du baax ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal di siyaare bu baax a baax suñu wëlëre alxaaji Ousmane Niang bu nget ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yokk koo dëgëral te sàmm ko sàmm daaraam sàmm njabootam te musal ko ci lépp loo xamante ne yàq la musal ko ci seytaane ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barak